warul woon mës tak ndaxte grenade yi tak tay bu také c'est parce que président Macky Sall président sortant dafa bëgg def li ñuy coup d'état constitutionnel di leen di masawu choono yeen ñëpp ndaxte dégg nañ ay journalistes yo xamné dañ leen arrêté dégg nañ ñenn ñi dañ libéré di ñaan am yaakaar ne libéré nañ mbolém journaliste yo xamné dañ leen arrêté euh suñu kanam lañu arrêté ay journaliste ci ci kanamu almeru Saint-Lazare donc di leen di masawu choono bu baax a baax di leen di masawuwaat coono ndaxte fii la ñu yëgee tiis ak naxar bi nga xamné ñun ñëpp dégg nañ ko té ñukay mititlu muy lu dal sen natango groupe Walfadjri mu melni groupe Bobu, président Macky Sall daf ko rek singali moonte de groupe Fadjri bu fekkoon da doon ritil président sortant monsieur Macky Sall ken duko tecc groupe groupe Fadjri bu fekkoon da doon défendre putsch électoral du président Macky Sall def ken duko tecc lan motax ñu tecc ko ndax ligne éditoriale moy être la voix des sans voix ñu ngi dénoncer di naxarlu di métitlu li nga xamné tégat nañ ko groupe Walfadjri mu melni président Macky Sall dafa bëgg asphyxier ay travailleurs pères mères et soutien de famille ci ko xamné li ngay créer ci emploi bay dab les besoins d'emploi chaque année sur le marché du travail. 30 000 emplois créés pour minimum 300 000 demandeurs d'emploi, nouveaux jeunes demandeurs d'emploi, qui sur le marché du travail au Sénégal. Donc nous avons mis exiger que ce que nous avons groupe Al-Fajri, nous avons exigé nous avons signal, nous avons licence, di dénoncer waat di exiger que les forces de défense et de sécurité wala ñenn ci seeni agents yi nañu de di toroxal journalistes yi nañu bàyyi di toroxal caméraman yi seen liggéey la ñuy def loolu bu noppee samay mbokk yi nga xam ne jiitu nañ ma daanaka wax nañ lépp li ci des kay mooy président Macky Sall président sortant dafa bëgg bouger. am taxawaayu addu kalpe te kii di addu kalpe nag boo buggee sa kalpe bañ dem ki bëgg sàcc sa kalpe lim ko jaral pour sàcc sa kalpe war nar a jaral lu ko ëpp lu ko raw ngir sa kalpe bañ dem président Macky Sall président sortant nag moom addu mandat la bëgg a def addu mandat ndaxte mandat wam yi jeex na dafa war a able dafa war a jóg ci bool bi bu ñu toogee seetaan nag dina sàcc suñu mandat dina fokkati suñu mandat dina fi toog ba illaa yow mi diin ba xanaa keroog rek yàlla d'accord di ko nanguwaat ci loxo ñi nga xam ne euh, ñooy ay mbokkam te loolu waruñu ko seetaan kon démb ak léegi ñu ci bëri ñi ci ëpp ci askanu Sénégal ñu ngi naan seen xol neexul koo ci dégg mu ne mu ngi lay wax naan dama ànd ak tristesse dama ne ñun waa Jomaay président dañoo ne jooy fajul naxar l'heure n'est pas à la tristesse jooy fajul naxar lii faj naxar mooy nañu ànd ngemb bëre nañu ànd def benn say dal ci ñi nga xam ne suñu ay non ñuy ay putschiste le président Macky Sall président sortant est un coup est un putschiste té putsch électoral le bëgg def le président sortant président Macky Sall coup d'état constitutionnel le bëgg a def kon di tour ay rongagne di naxarlu lolu waruñu liñu war moy jigéen nañu takku ba mu dëgër nañu ngemb ba ñu dëgër te fas yéene jàkkaarloog moom ne lii du fi amee ñoo lànk ñoo bañ du fi am loolu moo tax ñu ne ñun coalition Diomaye Président altine suba juróomi fan ci weeru février képp ku nekk ci région bu Ndakaaru képp kuy sénégalais ñu lay wax ñun ñëpp nañu joxante rendez-vous assemblée nationale ndaxte suba la assemblée nationale député yi war daje téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi député yi ngir wax ndax dañuy may président Macky Sall li nga xam ne moom la bëgg ñu ngi convoqué député yi nag onze heures ci suba waaye foog naa ne bu ñu bu ñu julli euh, fajar fekkul assemblée nationale bu ñu jullee ba noppi rek ñun ñëpp nañu daje assemblée nationale ñun ñii nekk ci région Ndakaaru ku mun a fanaani nanga nga fanaani ku mun a dugg biir assemblée na nga dugg biir assemblée ndaxte dañ leen di fàttali ne assemblée nationale am na place boo xam ne pour ñi nga xam ne ay citoyens lañu dañoo bëgg a seetaan du ñu mën a wax waaye dinañ mën a seetaan donc yoon moo ñu may. Nous dem à l'Assemblée nationale pour déglu ñi nga ñun askanu Sénégal nous sommes yebal muy suñu ndaw yi muy donc képp ku nekk ci région de Dakar nous rendez-vous biir Dakar, nous Nous rendez-vous l'Assemblée nationale ñun train président nous ngi loxo képp syndicat nous centrale syndicale organisation de la société civile njiitu parti politique que kuy candidats candidats, ci élection 25 25 février nous nous nous nañu def ben say ku nous say membre ku say militant te ñu daje assemblée nationale bi du nous Marius Sagna de suñu xeex nous ñun du coalition président de nous du xeexu Abdourahmane Diouf wala monsieur ministre Mary Teuw Niane de suñu xeex la ñun ñëpp dama ne xeex bi du xeexu may Maïmouna Bousso mbaa Soda Ndiaye wala ki nga xam ne mooy président présidente Aminata Touré mi nga xam ne jamono jii ñuy wax ak ñu ngi ko teg loxo ci gendarmerie bu Foire ci loo xam ne ay tappale la du seen xeex de suñu xeex la ñun ñëpp xeex bi du xeexu Bassirou jomaay Diakhar Faye du xeexu Ousmane Sonko suñu xeex la ñun ñëpp mbooleem citoyen sénégalais ndaxte Macky Sall lu mu bëgg mooy ñun ñii nga xam ne citoyen sénégalais ñun ñii nga xam ne ay liggéeykat lañu te am ay jafe-jafe payoor te am ay jafe-jafe ñu respecté suñu sañ-sañ ci wàllu syndicat te am jafe-jafe ñu respecté suñuy sañ-sañ ci biir entreprise président Macky Sall na dafa bëgg a suñu choono kon du Le président xeexu travailleurs yi la li président Macky Sall bëgg muy lu fukki dëkk yo xamné amuñu courant 2024 fi ci Sénégal li président Macky Sall bëgg moy sen choono yeen ñi amul courant yeen ñi amul ndox dafa bëgg a choono bobu ndaxte loubal alalu Sénégal motax amulen amu leen ndox moo tax courant jël alalu askan wi jébbal ko tubaab yi moo amuñu ndox motax amuñu courant kon lolu waruñu ko wëyal li tax nak ñu bañ ko wëyal moy élection am le 25 février 2024 élection présidentielle am ñun coalition Diomaye président ñu c'est pas parce que sondage nee nañ Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy gagné élection présidentielle le 25 février dès le premier tour que ñu wara randal élection yi bu doon lolu rek kon président Macky Sall du mësa nek président kon président Ablaye Wade day nan organisé l'élection organiser élection ndax té xamna né président Macky Sall moo gagné Li message bi mag ak ndaw goor ak jigen ñun nañu dem assemblée nationale ñii nga xamné nak nag ñu biir région bu ndakaaru Ñi nga xamné ne ñu biir région bu ndakaaru ñu ngi leen di wax né ku ci nek ñun coalition jomay président na nga bind sa bataxal pour lu naqarlu putsch électoral coup d'état constitutionnel bi président Macky def nga naqarlu ko ci nga de nga dem ko déposer ko ci gouvernance ci préfecture ci sous-préfecture ak ñoom seen def nga ndim délégation si jàmm Mak Salam dem déposer këyit dem naxarlu ko ci bërëb bi nga xam mom lañuy wowe gouvernance ci bërëb bi nga xam mom lañuy wowe préfecture ci bërëb bi nga xam mom lañuy wowe sous-préfecture ak délégation bu takku ba paré nak ah rafetluwaat campagne bi nga xam ne commencé na tey ndaxte président Macky Sall dafa waxoon ne campagne du am campagne amatul ngeen won ko ne campagne day am mu ubbeeku fii ci Ndakaaru campagne bi commencé ci lu ñuy woowee désobéissance civile ne président ñoo lank ñoo bañ ci biti ndakaar Thiès Tiwawan, Saint-Louis Ziguinchor Matam Kaulak, Fatik, Louga Tambacounda ak ñom sen gis nañ sen campagne amne, def ngeen seeni caravane ci tank wala ci auto pour commencer sen campagne lolu nak, dañ koy continuer suba dañ koy continuer inshallah ba ñaar fukki fan ak ben muy diru campagne électorale Li moy mooy bi nga xamné moom la ñun coalition Diomaye Président di xaar ci ku nekk ci ñun ndaxte mbir mi du mbiru Diomaye du mbiru Ousmane Sonko du mbiru Dame du mbiru Moustapha Guirassy ak docteur Tete Diédhiou ak ñoom seen lii kon lañuy xaar ci yéen suba ñu daje fa ngir fànq li nga xam ne président Macky sàll foofu la ñu bëgg a guux moom mii nga xam ne dafa fàtte ne Lamtoro Toro Amna... président Amna... et que Lamtoro, bourou téméré, at c'était un seigneur féodal dans le Fouta médiéval Fin 2024 nous sommes dans une république qui s'appelle le Sénégal à la tête duquel il n'y a pas de laquelle il n'y a pas un Toro... mais un président de la République dont le mandat se termine le 2 avril 2024

C'est mooy def mutinerie politique fu mu d'ailleurs depuis 2021, il vingt et en réalité nous, ñun askanu Sénégal ñooy def résistance c'est le président Macky Sall père et Benno Bokk qui ñooy def résistance ci s'en dem ñoom ñooy def résistance président Macky Sall li mu wax démb li mu annoncé c'est résistance Nous, les ñun askan wi dañ leen ne jeexal game is over nous, ne nous dañuy résister waaye fi lañ ñuy fekk nous leen jaral dinañu jaral dinañu jaral luko ëpp raw Sénégal suñu Sénégal Sénégal ça appartient au peuple souverain je vous remercie